Charama gaay ñoo ngi ziar ñëpp di béggee di jox ñëpp seeni wàccuwaay di leen ñaanal di sakunyan ñaan ñi def ko comme d'habitude doxantu waxtaan di ziar mboolem ndawal bëgg réewam maanaam patriote diziar mbolem mboolem kilifa bu mat kilifa di en bas les faux kilifa diziar ziar politique bu mat homme politique te xam lan moy turu homme politique di en bas les politiciens poli très d'union def si le mot chien xat ci kanam en bas c'est politicien les faux ministres, en bas tous les hommes politiques corrompus, en bas les professeurs corrompus, les faux intellectuels en bas, en bas les faux guides religieux, en bas les faux religieux, en bas les faux khalifs, en bas tous les fils corrompus du Sénégal en bas. Voilà, c'est important c'est l'heure du changement parce que nous avons a changement Et dañu ñeme wax ko bañ tourner autour du pot sama sans plus tarder dans les prochains jours j'appelle Ousmane Sonko de ko libérer si vous ma soupçonné parce qu'il suffit juste de lire le schéma de voir les choses le déroulement des choses Euh, mën ngeen sentir yéen ñëpp ni Ousmane Sonko fan yi ñëw nii rek incha allah dinañ ko libéré mën na am sax fi balaa dimanche di ngeen dëgg ni Ousmane Sonko libre na libéré nañ ko waaw léegi nag ba mu des xam lan moo tax ñu bëgg ko libéré ñoom mi xiif ko ragal ko ban Ousmane Sonko mooy gën ci kaso gi Ousmane Sonko sera toujours le Ousmane Sonko que vous connaissez. Est-ce que vous avez même à l'Irbi, même combat bi les est-ce que vous y bu puisque nous, il faut que nous refaire tout est à refaire comme nous vu le tiktoker gabonais je ne sais pas s'il continue à faire ses vidéos le jeune tiktoker gabonais tout est à refaire la présidence est à refaire la primature est à refaire l'Assemblée nationale est à refaire la politique en Afrique est aussi à refaire Nous, sommes euh, élection tout est à refaire d'après d'après d'après d'après ni bilan ou d'après ni dialogue bi quoi dialogue politique bu ñu def barki dëmb donc ñi ne tout est à refaire ça veut dire que j'espère que bu ñuy génnee Ousmane Sonko it dinañ ko sétal ba mu sét wicc te it dinañu corriger lepp ci gannaaw ga recours yu mu jotoon a def yépp demande recours yépp mu jot def yépp exploser lepp tous les travaux du conseil constitutionnel ba paré bàyyi ko mu jall comme candidat bàyyi ñëpp jall comme candidat espérons que donc ça soit ça sera comme si, comme ça. Euh, espérons que ça va se faire ainsi. Donc, Dame wax ni bu que Macky Sall a décidé d'amnistier euh, voilà quoi parce que pour amnistier c'est nit dee fekk mu def dara wala nga ne nit ki Bal nga ko amnistier c'est-à-dire que balle quoi c'est-à-dire que Bal baal nit ki n'a quoi allez que ñi ne moom may nañ ko pouvoir mon président en plus quel type de président président vous xamné dalen di ni d'ici quelques mois buñu à situation gi pays da koy wo bu que ñun sénégalais am nañu parce que pour que CPI wo Macky Sall suba pour ñu traduire ko euh, chaque cour des tribunaux de la CPI euh, il faut que sénégalais yi seen bop ñu am c'est ça, parce que nous, euh, nous, mettre un doigt accusateur, pointer un doigt accusateur, mettre la pression à la CPI pour nous faire des travaux, euh, woyal ay pour traduire nous ñoo xam la laxasawu nañu ci walum xalé yi ñu assassiné ci walum corruption Sénégal ak ci walum violence à amoon ba booy bëre dee waaw ñun ñoo wara a def lu wara nous en ma ñun sénégalais président boo xam ne bu fekkee dañuy wéeru rek rek ci mbir yi nu mu demee CPI da dakoy laxas président boobu koo xam ne dafa tilim loxoom dañoo tax deret koo xam ne loxoom dañoo tax ci wàllum corruption ñu ko wër yëpp ñu ngi yor ay manne financière yoo xam ne ay moyens yoo xam ne xaalis gu takk goo xam ne du liggéey moo leen ko may ñuy laaj safa lañ ko jëlee ba léegi kenn si ñoom

kon su ma déggee di wax amnistie amnistie ça me fait rire man en tant que jeune averti conscient mature ko xam lan moy droit xam lan moy politique xam lan moy justice xam lan moy esprit de patriotisme xam luy démocratie nga ne ma <laughs> euh, dañuy amnistie boy man ça me fait rire quoi ça me fait rire en vérité ça me fait rire donc pour wax len ni Macky Sall il a des comptes à nous rendre na def lu ko neex na des dialogue nous na libérer, gars et tout ça mais à la fin na xam ni les buñ ci ñun les Sénégalais matures et vaccinés nous allons faire parler le droit et nous allons euh, convoquer ou révoquer ou réconvoquer pardon reconvoquer pardon jëgal reconvoquer euh, tous les détails par rapport à l'injustice, la violence policière, les assassinats, tout azimut, et toutes ces incohérences quant à la gouvernance de notre pays, nous allons les reconvoquer par rapport à ça, reconvoquer par rapport à ça, pardon. Donc, pour Wahlani, s'il pense que les choses euh, seront faciles, s'ils pensent que les choses seront faciles pour eux dans les mois à venir, les années à venir, ils se trompent vraiment de génération. Ils se trompent vraiment de génération. Il suffit juste d'avoir une cellule de jeunes dynamiques prêts à faire parler le droit et la justice lépp dina leer bu neexee suñu borom donc c'est ça loolu mooy suñu xeex looloo ñu tax a jóg c'est au-delà de la personne de qui que ce soit muy sax Ousmane Sonko wala sax ku ku raw Ousmane Sonko waruñu empêcher cette fois-ci que qu'on fasse des choses à ce que l'homme politique sénégalais respecte le citoyen sénégalais loolu dafa war a doon exigence politique mais une exigence judiciaire sama dans les jours à venir disons au plus tard si le massif peut-être au maximum dimanche ou lundi matin c'est fort possible c'est fort possible nag une une confirmation là juste il faut regarder les choses comment ça se passe et tout ça Ousmane Sonko sera libre mais bu que Ousmane Sonko est libre il faut que tamit ñi xamni ni élection yi buñ ko waree tëggaat Ousmane Sonko dafa wara participer suñ ko waru tëggaat tamit dañu wara euh dóor campagne Macky Sall dafa war a pousse élection dafa war a am euh, le mois de juin normalement puisque mom mënul organiser élection au-delà de euh, d'avril euh, avant avril la bëgg a wax wala le 2 avril ça. hein mais xam savez, ni deug deug ci deug waji ay joint rek la organiser élection yi te jamono yi day fekk il ne sera plus légitime d'être président c'est-à-dire que dafa mel ni ab locataire bo xamné ne da nga ko jox sommation bu yàgg pour mu gënn nangul gënn c'est que jour yu fay tok palais dafa mel daf ñuy amel ay bor ñun ñoo ko assurer lu muy nous ñoo assurer lu muy nan, ñoo ko assurer sécurité alors qu'il n'est plus légitime d'être un président de la république et c'est hors la loi, lolo, en quelque sorte. C'est anticonstitutionnel, en quelque sorte. te loolu as gor waru ko nangu moom russe... na muy toog suñu palais besoin, normalement warno na si vraiment il est un homme d'état il se targue d'être un homme d'état tout le temps buy wax fu mënti dem di yëkkati mbagg di guux di ñor di intellectuel borom xam-xam homme d'état un homme valeureux mais là là vraiment si souffle, pyramide Villanais, quoi. Il ne ressent pas à un homme d'État, il ne se respecte même pas parce qu'il n'est pas un homme de parole, il n'a pas respecté sa parole. Ce qu'on voit de lui, certes, il est un dictateur. Ce qu'on voit de lui en vérité, c'est qu'il est un dictateur, un voyou politique, un bandit intellectuel. Ce qu'on voit de lui, c'est qu'il a échoué. Ce qu'on voit de lui, c'est qu'il n'est plus un homme de parole. C'est l'autre déception là pour Asp, soi-disant voilà homme d'état quoi parce que le lay Bopom, l'olé, on a wan aduna gi yëpp soo le discours wahom yep, on wala souvent mu sànni ay parce qu'il parle à l'opinion internationale Yagna naa leen ko wax dinaa leen ko waxaat waxoon ni mi am lu def c'est pas parce que Sénégal la bëgg a c'est pas parce que sénégalais yi la russe déedéet nasaraan yi lay waxal ñoom lay communiquer parce que il veut les rassurer que mon, mu ngi toujours ci wàllum état de droit et que mu respecte les droits et que mon bouge bëgg Sénégal la dafa bëgg organiser Sénégal balaa muy dem alors que cela n'est pas vrai du dëgg amut ay tappale la gàcc la manipulation la gëmut Sénégal musul gëm Sénégal nguur kese le bug. nguur kessé lay daw nit ku bëgg pouvoir la c'est un assoiffé de pouvoir il n'est que ça que dalle il n'est que ça il n'est que ça le rek la C'est un donc nak amo toute légitimité à la tête de notre pays ça il faut qu'on qu'on qu'on ose le dire il faut qu'on ose le dire haut et fort que Macky Sall toute, tout à moi toute légitimité donne le président de la République du Sénégal. À partir du, 2 avril, au plus tard, fin avril, Macky normalement, dans un état de droit, un pays qui se respecte, avec des citoyens qui se respectent, qui connaissent ce que c'est que le droit et qui respectent leur constitution, Warutok à la tête du pays. Mais comme que Sénégal, puisque Sénégal, pardon, tel on le connaît, notre cher pays et les peuples respectifs qui s'y trouvent, euh, nooteel la ñu gën liberté du ñu ay majorité bi laay waxala cela ne veut pas dire que réew mi amut ay nitu dëgg amut ay xeexkat amut ay jàmbaar dégg ngeen dëkk bi yàgg na jambar, ay jambar ay jàmbaar tiggi ay jambar yo xam la Lat deug lañu niro ñuy niroo Aline Sitoé Diatta ak Thierno Souleymane Baal loolu ci rew mi mais quand on parle, quand on parle, on parle de la majorité, la majorité. Même élection, vous avez dit que vous organiser. Lui, tax ngeen fal nit majorité tax majorité sénégalais gi nag mooy du xeexkat sénégalais du her. nooteel la gën a miin ci culture la bokk Lolo tax bu ñuy wax ñu ne Sénégal réewum jàmm la sangam ok réewum jàmm la booy nekkal nitu jàmm. waaw nekkal nitu jàmm mais nit bu la bëgg a yàbb bu la bëgg a font parce que da nga ko dënk dara mu bëgg a jël loolu bëgg la fontu sa waaye da ko war a si cimetière nit boo ko joxee léppam cëram lépp ba mu mat nga jox ko respect jël sa institution dënk ko jël sa constitution dënk ko jox ko armée jox ko sécurité jox ko lépp ba pare yemoo ci di ko fay ba pare nga ne ko yow soo wàccee sax ancien président u ex président yow ba ngay dee à vie ñun dañ ñee ndax Abdou Diouf amul sikk ñu koy fay ba léegi Abdoulaye Wade ñu ngi koy fay ba léegi Senghor dañ ko fay ba xëy dee ñu jël koorom yi indi ko Joal daggal ko fu ñu ko war a suul suul ko waaye nit googu noonu nag bu waree bu la waree font sa waaye cimetière nga ko war a yóbbu normalement kooku cimetière la war a dem kooku da nga ko war a dóor duma ba mu dee nga yóbbu ko cimetière seen dëgg voilà peuple bu respecté boppam noonu lay mel mais toog di woote jàmm ci ay kàcc jàmm ci ay fen jàmm ci nooteel jàmm ci hypocrisie booy loolu jàmm mënu fa am dafa am contexte boo xam ne bu ñu fa yeggee ci as réew jàmm mënu fa taxaw waaw léegi nag ku nekk mun nga wax lu la neex mun nga xalaat ci lu la neex joxe lu la neex mais Macky Sall mii nekk seen palais présidentiel moo leen gën a xam ni nekku ci dëgg moo leen gën a xam ni Sénégal bu mu yor nii bu mu ñu bàyyil nekkatut état de droit moo leen gën xam ni Sénégal gii mu bàyyil sénégalais yi amatut respect moo leen gëni xam ni dignité amatut Sénégal moom moo leen ko gëni xam lii dafa dafa ruslu sax parce que moom ay prédécesseur am Abdou Diouf bu muy dem dafa bàyyil Abdoulaye wat un état bu normal mu dem ci élection bu jaar yoon mu dem Abdoulaye wat tamit moom bu muy dem c'était pareil

ñaata nit yu ko ëpp fit ëpp ko fulla ëpp ko lijaasa ñoo nekk senegal xam nga nit yàlla des fois day boole nguur si sa destin mais yow sa nekk baadoo la day tax doo ko xam waa ji looloo ko dal yàlla dafa mooñaale nguur ci destin am mais comme baadoo la ah nit la goo xam ne dignité dafa xëy moomu gont respect dafa xëy mu gont rusukaay dafa xëy mu gont sages dafa xëy mu gont lolo tax muy comporté wu nii nguur da ko dab bu jam don ñeme wax yàlla day juum dinañu wax ni yalla fi juum na ki waru ko dënk nguur waru ko jox nguur ki mérité wut nguur waaye suñu borom xam na xëy na dafa bëgg à travers Macky Sall ku mel ni Macky Sall kii sénégalais yi mën lu aduna mën a politique mën a xam-xam mën tijji seeni jaar abadan ila yow din di ñi mën a ay nit kaw suuf parce que amut sikk dañoo dese doon ay nit pour nga xam ko il faut ngeen daj ak sénégalais benn par benn nga leen di cukk ngeen di waxtaan nga di deglu di nga xam ni cheikh anta job réew bu mu nek mérité wut am ñenn yi ñu bëre ñu ngay waxtaanal ci mbedd yi nekk ay sénégalais di woote tuuru sénégal te boo leen waxee doo leen ay sénégalais si benen façon ñu mer mais nag boo xoolee luy cheikh anta diop ak mamadou dia so xoolee luy suñuy jiko maam yi ak suñuy valeur maam yi ak suñuy principe maam yooyu maam yooyu suñuy principe yi maam yooyu suñu maam yoo xam ne dañoo fees dal ci principe nekk ay am fulla fayda nga xool ko si seen yenen seti yii yu fiy doxantu koo xam ne koo si gis ñu si gën a bëre seen bakken la ñuy toogee bugguñu sa gis xeexkat bugguñu sa gis bañkat bugguñu ko tax gis nit bo xam mu ne du nangu ñu ma sama réew xool leen rek lu xew Sénégal ñuy texe biiru réew ma yëpp ba seen capital ga Dakar ñëpp ñu fa nekk di texe ñu si gën a bëre du ñu yeewu Sénégal du ñu fanaanoo Sénégal wala sa judduñu Sénégal seen maam yi xam dañoo ñëwoon nii rek installé wu Sénégal ñooñu ñoo nekk di yor millions yi Sénégal ñoo yor yëpp Sénégal ñooy li tax sa sénégalais yi liggéey ñooy tax sénégalais yi dund. loolu dinaa si ñëw benn jour ñoo yor économie Sénégal sénégalais gi moom nekk comme sénégalais ci carte d'identité la yem ci extrait de ak leneen ak leneen dëgg naa sax seen extrait yi sax léegi dañ koy jaay dëgg naa ñu bëree si dañu ñàkk seen diplôme parce que dañu jaay seen extrait dëgg naa ñu bëree ñoom dañoo dem ñu ne yow sa extrait moo ma too ko sa numéro de registre am na tuuri keneen a ne te kooku moo ëpp sa baay ak seen ndey ci réew mi ndax moo ëpp sa baay ak seen ndey xaalis moo ñëw jënd benn sénégalais euh, corrompre ko mu jël sa registre jaay ko waaw léegi yéen lan mooy seen nekk sénégalais lan la lan lan moy sénégalais ah, exactement bu féké man Moustapha samay mère dinañu du Sénégal man Sénégal Je fa un am sama bac un jour Je sa registre jaay nañ ko sa diplôme bi un na nga ko. parce que là, da nga doolé wala sa famille amuñu parce que amo moyen ay étranger ñoy ñëw jënd say say say say étranger normalement waruma tudd mo je vais me corriger un peu voilà ben citoyen ben réew par exemple ben réew Afrique mo parce que man je crois aux États-Unis d'Afrique mais ça sera dans le respect l'équité le respect dans la réciprocité dans la réciprocité bugguma sax Guinéen gi muy nek Sénégal du sentir boppam comme ab sénégalais bo sañoon des sentir comme ay sénégalais mais lepp dafa wara respecter les normes dafa wara respecter droit droits règlement règlements tout doit être réglementé dans le pays

naar libanais yi jàmm gu ñu am Sénégal buñ fa ñëwee ñenn ñu bëre si ñoom amuñu ko seen réew laaj leen seen sœurs yi ñuy jël di leen nax yóbbu leen pour wax leen da ngay dem liggéey Liban buñ fa yeggee lan lañ leen di def ay esclave lañ leen di def foofu ca Liban. te pourtant libanais yi nekk foofu Sénégal juddoo fa màggee fa ñeneen yi am fa lu ne teranga bu ne ba ba di jël sénégalais yi sax di leen liggéeyaloo affaire yooyu naar yooyu noonu balaa ngeen di lijjante Guinée ñooñu ngeen war a njëkkee lijjante Yérim Sek, musoon na def benn sortie dénoncer benn famille libanaise benn famille libanaise boo xam du respect circuit traçabilité xaalis circuit monétaire normal ci business bu muy tënk biiru Sénégal. vite fait lan la ñu def puisqu'il s'agit de milliards il s'agit d'enjeux énormes Là, la nous def ñu dem jàpp Yérim Sek, même bu fekkee xëy na dafa yokk mais lu muy wax lu am la mais xëy na dafa yokk ñu dem jàpp ko sànni ko ci kaso gi direct xool rek parce que là, la ils veulent protéger cette famille là famille boobu la ñu bëgg a protéger à la à la place d'un journaliste du pays qui a fait des investigations qui veut protéger ses sources Hein? Ah, N'ari, yi lu leen neex la ñuy def ci biir réew mi yéen au lieu que ngeen régler ñooñu ngeen ne ay Guinéen ngeen di régler d'abord ben ben exemple mu ngi noonu dañuy jël ay sénégalais di leen liggéeyloo di leen fay ay salaires yu misérable dem leen xool Patisen seen doom yi nekk Patisen ca côté Yaraax ngeen dem laaj leen ñaata lañ leen di fay par journée ci yan condition la ñuy liggéey n'importe quoi Les hommes politiques politique sont lu may ni mais ils ci xuus duñ ci wax duñ ci def dara duñ ci parce que pour nous, c'est normal que sénégalais yi dans la pauvreté qu'il est ils exploité comme un esclave ci biir est-ce que loolu loolu dafa continuer sur biir donc pour moi les gars nous avons une responsabilité nous avons une fulla ak xex jom ak résistance bagn doon ay nit yu soumettre loolu moo ñu siy génnee te loolu Ousmane Sonko daf ci wax ba sonu wax len looloo ko dugal kasso looloo waral lu mu enduré lépp wara waral lu mu dund lépp lu metti lu mu dund lépp ko indi wa loolu kessé la loolu moko ko indi c'est triste n'ak mais c'est ce qui est la vérité c'est dëgg kon fan Ousmane Sonko dina gënd bu gëndé bu gëndé

fa affaire yi commencé mooy jamono yu ñu commencé dugal parrainage yi ak processus de blocage yu ñu créé autour de la candidature de Ousmane Sonko de telle sorte que Ousmane Sonko du mën a am euh, ay ay ay ay reçu nangam sangam papier bu mu soxla du ko mën a dugal lu mu bëgg a def du jàll ñu koy bloqué loolu noonu yëpp loolu dañ koy corriger di début à la fin et que Ousmane Sonko it mu nekk candidat mais mu fekkee Basirou xaarle ma même bu fekkee Bassirou Diomaye Faye mom ci boppam même bu fekkee Bassirou Diomaye Faye ci boppam kandida. day nekk candidat mais Ousmane Sonko nekk candidat ce qui veut dire que Pastef am ñaari candidat dégg ngeen ñaari candidat Pastef am ko wala ex Pastef mun ngeen ko waxee puisque ñoom di lañ bëgg di dëgg ex Pastef moo leen neex tur googu leen neex mu am ñaari candidat voilà mais duñ fi tas carte yi yëpp bëgg reprendre à zéro bëgg yemal affaire yi ci parrainage yi mooy bu ñuy bloqué gi ñeneen ñi ñu ne ñii ñooy jàll ñii jàlluñ déedéet dañ koy delluwaat ci gannaaw loolu il faut que opposition mi préparé wu ci loolu lépp lañuy ñuy commencé depuis programme DG yi tout ça am nga ñiy empêché Ayib Daffé di dem dugg lu mu soxla yëpp ñu ko koy bañal loolu yëpp la ñuy corriger bu fekkee Macky Sall dafa fas yéene amnistie Ousmane Sonko wax leen ko loolu nag mooy amnistie dëgg foofu la koy amnistie foofu nag moo jara wax kon na Ousmane Sonko participer Bassirou Diomaye Faye participer te bu leen neexee sa nag Karim Wade participer bu leen neexee ñoom APR ñu ut cinquante deux candidats ñu teg parce que daf ñu wóor ni élection yooyu ñu ñoo xëy gagné si benn état de droit loolu moo war a am nañu waxante dëgg bu fekkee dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg respecte dëgg dëgg te dañuy woote état de droit suñu biir réew lolu nak mo wara am obligation la pour moi. waaw lolu la bëgg nak sànni comme message tay ñi xaar boo xam peut-être week-end bii ñu am temps parce que bëgg na def ak ben euh, live sous forme de cocktail explosif ñep dégg ñu comme ça que la vérité sonne euh, chez nous dans notre cher pays jërëjëf ñu joxante rendez-vous prochaine fois